أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمحتدي aslil us mbokki Sénégal Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kemtaanu secret yi di ku yàlla may ci wàllu ñaan nekk tradipraticien bu mag mi ngi fii ci géejawaay jàkkaarloog terminus 38 bi ci wetu marché jeudi bi ah mbokk yi Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi lépp law yittewoo ci wàllu ñaan rek gaawal ñëw seet si ko di jàppale doomu aadama yi ci façon ñaan yu bari nag bu ci mel ni ceen gi nga xam ne day ubbi say mbir lépp looy dugg bëgg mu ci ceenu Cheikh Ousmane Touré gii yow mi def commerce bëgg loo jaay mu jar wala yow mi def concours wala examen ak examen bu mën di doon ba ci mbokki politiciens yi nga xam ne dañoo bëgg mbooloo wala ñu bëgg falu yow mi def business gaawal seet si Maulana Cheikh Ousmane Touré boroom kéemtaanu secret yi sama mbokk sportif yi nag ñëpp ràññee Maulana Cheikh Ousmane Touré mbër yi ba ci footballeur yi ku ci jàppanteeg Maulana Cheikh Ousmane Touré doo ko rëccu Maulana Cheikh Ousmane Touré ne mi bëgg a tukki ambassade boo dem ñu rejeté say këyit gaawal seet si Cheikh Ousmane Touré sa tukki jàppandi yow mi wut place mu tëla foo déposé say këyit ñu ne la du fii gaawal am ci jaaro Cheikh Ousmane Touré bii jaaro bi dina ubbi say mbir te bunt boo fëgg mu ubbeeku Cheikh usmaan Touré day defar miina bi nga xam ne dalay aar ci lépp lu jëm ci wàllu fetel wala arme blanche muy paaka ak lépp jëm ci xeetu weñ miina bi dalay aar ci accident oto wala avion wala bato lépp lu mu ci mën di doon boo amee miina bi doo ci bokk ah mbokk yi ndomboy Cheikh Ousmane Touré yi nag ñëpp ci war a am di ndombo ya nga xam ne dalay protéger ci lépp lu la mën a lor yow mi xulloog nit mu dal di lay tëkku fexeel am ci ndomboy Cheikh Ousmane Touré yi ku la tëkku ku nekk ci kawam lay dellu ndombo bi dalay aar ci wàllu jinne ak nitu guddi te ku ko takk ku nekk doo dugg prison ah mbokk yi ndombo Cheikh ñëpp ci war a wut Cheikh yemul foofu de ndax day defar sifaawu jooni jooni di faj juróom-ñaar fukki jàngaro ma daal di la ciy limal lu ci mel ni jabet góor gu néew kàttan wala góor gu télé estomac wala hémorroïde lu ci mel ni cataracte ndoxum siti fatiguement général wala ballonnement wala stérilité wala cuuraay bii di cuuraayu seytaani yow mi seytaani jàpp fu nekk ñu yóbbu la fa mënoo wër Cheikh Ousmane Touré moo ci gaaw mbokk yi Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yaa ngi noonu mi ngi fii ci Géejawaay jàkkaarloog terminus 38 bi ci wetu marché jeudi bi soo bëggee jokkoo ak moom mën nga koo ci 77 767 57 11 mooy numéro whatsapp bi wala ci 70 485 12 18 yow mi am jafe-jafe ci sa yaram ak bu mu mën mënti doon gaawal seet si Maulana Cheikh Ousmane Touré mii mu jàppale la ci nga daal di gaaw tàggoog moom ma fàttali la adresse bi mi ngi fii ci Géejawaay jàkkaarloog terminus 38 bi ci wetu marché jeudi bi foo taxaw rek na Maulana Cheikh Ousmane Touré laay laaj ñu won la ko di ku yàlla may ci wàllu ñaan di ku ñëpp. ràññee ci wàllu ñan tamit kon dal jàq ak jaaxle jeex na tàkk ak Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi